ci yéenekaay yi El Hadji Ousseynou Ndiaye da leen jàmm ci xibaar yéene kaay yi nga xam ne rek moom la xëyadoo ñu door ko la wax ci di yéene kaay gi duñu xamale ne rek moom la taxawal na ko yéene kaay gi duñu xamale Moustapha Diakhaté nag di yëkkati kàddu ne la bu ngeen gisee ñu taxawal li loolee daal dara wëralu ko lu dul jubbanti li nga xam ne rek moom lañ woon a doxee maanaam daal gën a boole ñi nga xam ne rek ñoo nekkee ci APR yéene kaay gi duñu xamale ak lu mën xew Moustapha Diakhaté daal loolee mooy kàddu yi nga xam ne daal yëkkati na ko di Vox Populi di daal Moustapha Diakhaté nga xam ne daal borom karang yu sens yu tàng jëri nga xam ne rek moo di njiitu réew di ko tëkkoog yu ni mel Le ko boo ko maas kër maanaam daal Moustapha Diakhaté kaddu yi nga xam ne daal yëkkati na ko ki xam ne rek yëkkati na kaddu yi xam ne daal responsable gi nga xam ne daal moom lay woote wuute nag lool li nga xam ne rek moom la nekk mu ne taxawal na ko yoon wa maanaam daal ngir mu wane ginnaaw yéene kaay bi di Sud Quotidien nañu la demee Moustapha Diakhaté taxawal na li nga xam ne rek moo di courant Abdou Mbow mel ni ku ko dàqee ca bi te jamono jooje ñeneen ñoo xam ne ak dàqante amoon na seen diggante takk der yi wàllu lànk nañu raamal dañu teg leen loxo i gi duñu xam le jamono ji gannaaw ba ñu leen ba ko la wax la wax nguur def lu la neex a weng te kenn du ko nangu ci Sénégal ba ñu ba ñu ñu ñu bu bu tax Sénégal jafe-jafe yi nga am nañu ko ci courant bi kon dinañu ko def bi di critique di xamal ne ak lu xew jamono ji ay avocat ñu koy ak liberté provisoire ñu ci lay avocat ne am war na koo lijjanti yéenekaay bi dañu xamale mooy Aly Ngouille Ndiaye commissariat central jamono ji nag bërëbu suturukaay yi nga xam ne rek ñoo nekkee foofee maanaam daal jamono ji anam yamu mel la ko doon lijjanti yéenekaay gi dañu duñu xamale moom Mbayang kay dañu koo tëj laa la wax dóor ko Nicolas maanaam daal dañu koo cuub cuub yu métti yi populi di ñoo maanaam daal ñenn ñi nga xam ne rek ñoo nekkee ci Pastef ñoo doon yëkkati kàddu doon doon xam ne rek jàpp nañ ko ci wàllu yàmbaa yéene kaay duñu xamal gannaaw opération goo xam ne rek doon nañ ko amal ngir seet li nga xam ne rek moo di yàmbaa yéene kaay duñu xamal ne jamono ji nag ki nga xam ne rek teg nañu ko loxo ba ñu demee këram am na lu toll ci fukki saa ci yàmba yoo xam ne rek teg nañu ko loxo saako bu ci nekk boros nañu ko ba mu def téeméeri kilo yàmba pbi xam ne loolee nag mi ngi tukkee ci opération boo xam ne maanaam daal seet wàllu dorog la ko doon amal Ziguinchor Tamba ak Mbour waaye nag teg loxo ci lu bëri ci wàllu yàmba ñu teg suñu loxo ci réew mi ko amal waaye nag jamono ji ki ne rek sàkk woon ñu tëj ko ngir dundam moom Samba Sow moomee ak liggéey goo xam ne rek sañu koo bañ waaye nag lu toll ci genn wàllu milliard goo xam ne rek moom Samba Sow war na koo fay yéene gi duñu xamal loole nag bu fekkee nag maanaam daal doxal nañ ko Samba Sow dina yàqu ba faaw keneen ki ko yàqul fenn yéene bi de libération xamal ne Isabel dos Santos doomu njiiti réew bi nga xam ne rek moo nekkoon Angola jamono ji nekkal maanaam daal loxoom